Nasr 18 safar. sant nañ ci bu baax a baax. lu ñu lu ñu xetli la ñun daf ñu dimbali. Nasru 18 safar. faaru oto yi loolu moo daal sama tànk bi mu daal di pooj bi dem ma sabaru gamsatin junnatul sabaru gamsatin junnatul sabaru gamsatin junnatul saantari màggalu daawaati géej màggalu daaw bi ak bëgg a jiitu euh, chaque année cas yi ñu am yëpp buñ leen woowee ñoom dañuy ñëw jël malade bi en charge jëndal ko implant orthopédique yëpp euh, ñu faj malade bi ba malade bi mën a dellu këram. opéré nañ ma defaral ma tànk bu mu baax te wax dëgg yàlla gis yëgatu ba benn méttiit safaru bamsatin junnatul safaru bamsatin junnatul safaru bamsatin junnatul saatari rabbul bariyatil liggéey bu rëy nii boo kawee nii boo xam ne nii lu ñu lu ñu xetli la ñun daf ñu dimbali ndax dañ daan ay accident yoo xam ne dañuy damm ci mel ne ay moojo wala ci lëpp yi muy damm-damm yoo xam ne dafay laaj léeg-léeg te xam nga nit ku jël ak mbuusam rek dem di màggali lu ci bari fàgguwu ko dafa ñëw rek ngir xéewal Sëriñ Tuubaa donc accident yooyu ñaar daf leen di bett li ñu amoon yoroon ko kus néew ñenn ñi dañ koy safal léeg-léeg ak yu mel noonu donc bu accident yu mel noonu amee màggal gi dañuy jël en charge maladie gratuitement waaye nag am na fu mu yem lu mel ne consultation analyse ak rajo yëpp danañ ko may waaye nag weñ gi nga xam ne dañ ko def ci yaramu nit ki ñu di ko wax implant orthopédique mu weñ boo xam ne nii mën na jar ñaar fukki junne ak ñeent ba romb ko ba ay fanweeri junne ak juróom lu ko ëpp sax dañ ci daan am jafe-jafe lool. nga xam ne malade bi luñ ko buñ ko entré defal ko analyse defal ko rajo yi ba mu des opération rek léeg-léeg mën na tëdd ci lal bi lu mat juróom-ñaari fan ba fukki fan ba màggal gi jàll lu bari sax. di xaar ay mbokkam dajalaatu ngir mën a am lu ñu jënde weñ ngir ñu mën ko opérer. Nafsu 18 safar euh, bi nga xam ni màggal yi weesu yëpp euh, mu toll si ñett ba ñeenti màggal euh, mu am jafe-jafe bu ñu daan am si malaat yi nga xam ni dañuy daan accidenté parce que ku wax màggal wax accident. te euh, man ma jàpp ni malaad yooyu sax ñooy malaadu màggal gi parce que mooy malaad yi nga xam ni ñoom ñoo soxla ñu taxawu leen parce que boo jógee di màggali am si tolof tolof lu mel ni accident bu mu jar ñu defal la euh, lu mel ni implant orthopédique euh, loolu mooy faj bi gën a diis. parce que bu fekkee damm-damm la boo xam ni dafay soxla rek ñu tabax la nga ñibbi loolu daanaka amul jafe-jafe trop mais malade yi nga xam ne dañ leen di war a opérer. Euh, defal leen ay weñ parce que su ma nee implant ay weñ la yoo xam ne dañ koy def si biir tànk bi euh, mu nekk ay faj mu cher mu diis euh, suñu hôpitaux yi amoon ci jafe-jafe lool mais depuis que Nastou 18 Safar dugal ci loxoom daanaka gis nañu saafara bi parce que màggalu daawaati géej màggalu daaw bi ak bëgg a jiitu chaque année cas yi ñu am yëpp buñ leen woowee ñoom dañuy ñëw. jël malade bi en charge jëndal ko implant orthopédique yëpp euh, ñu faj malade bi ba malade bi mën a dellu këram loolu euh, def nañ ko euh, defati nañ ko te mu nekk loo xam ni dafa diisoon su ñun xawoon jafe su ñun lool ba nga xam ni malade yooyu dañ daan am jafe-jafe pour nañ leen fajee parce que médicament yi nga xam ni moom la ñuy am si màggal bi weñ yooyu implant yooyu bokk ci. loolu daana jur conséquences yu bari mooy malade bi dana yàgg hôpital ay mbokkam dañ sonn. dana téye suñu lal lu yàgg te lal yooyu ñu soxla ko pour mën a faj maladie nu mu gën a gaawee mu daan indi ci indi ci ñun tardement yoo xam ni su docteur yi doyee itam du tax liggéey bi am efficacité taxawaay bi ñu war am day day des loolu nag bi nasru ñëwee ak bu rafet bii nga xam ne ñoom vraiment ci njëkk ak teraanga ak secret dañ ñu may saa bu ñu amee cas bu mel noonu nga xam ne vraiment am na jafe-jafe dëgg ñu mën leen a woo wax leen ko ñu daan ñu ci indil seen dimbal lu mat sëkk mooy ñëw taxaw laat bi jëndal ko bañ kooku jox ko ko ñu mën ko opérer loolu daal dëgg-dëgg ndimbal lu rëy rëy la loo xam ne nii dëgg yàlla ñun ñii di hôpital sax ak ñun ñi fi liggéey sax dañ ci waroon dugal suñu loxo. nun nag dañu bokk ci ñi nga xamee ni ñoom la Nasr njëkk taxaw ngir bi ñu fi amee bi ñu bi Nasr taxawee ñu am fi gàllankooruk yoon jóge woon Ndar jëm tuubaa am gàllankooruk yoon Nasr moo nu taxaw. bu baax a baax a baax ci lépp nag lu ñu mën a soxla ba tubaarkàlla euh, kenn képp képp ku ci amoon gàllankoori yaram tubaarkàlla euh, saafarawu na ngir yàlla ak jëmmi nasr 18 18 safar jaare ko nag ci sunu sëriñ sunu xarit sëriñ cheikh Abdoul Mbacke moom cheikh moom sëriñ Dame Abdourahmane moom Cheikh Ibrahim mu sëñ Touba sëñ Cheikh ñu ngi koy ñaanal moom mu yàgg fi lool te ànd ak wér ngir taxawu taxawu nanu ba fa taxawu yam. ndogal googu ba mu daanoo sunu kaw àndu nan ka ak sunu ay bokk waaye ànd nan ka ak it waa Nasru 18 safar bi ñu demee ba nga xamante ni sunu borom indi na ndogal googu metti woon na waaye taxawaay ba sant nañ ci bu baax a baax. ndax nas nasru 18 safar yónnee nañ ci saa saasi ban ko yëgee dañu yónnee ci saasi lu nu fajoo taxul it ñu bàyyi. man mii bokkoon naa ci ñi nga xam ni maa si gënoon metti la ci accident bi am na nag ñu ci amoon ñi seen bopp toj ñi seen loxo am na ci sama benn doomu nijaay boo xamante ni ba léegi bët bi si la ko jëlee woon am na ci sama doomu càmmiñ bu ci nekkoon tamit ñaari loxo yi ñoo damoon. waaye bàyyi ka ba bin kay opéré xaalis bin ko opéré genn wàll ga yëpp mi ngi jóge foofu si Nasru 18 safar kon nag ñun sant nañ leen bu baax a baax ñoo ngi sant bu wér a wér di sant yàlla bu baax a baax ak yonent bi ak Serigne Touba mi nga xamante ni moo nu mayaat nu toog ba di ko nettali ndax loolu bi muy am mi ngi am 18 novembre 2016 waaye nag sant nañ suñu borom bu baax a baax man de sant naa bu baax li may sant mooy am naa si màndargay Sëriñ Tuubaa metti woon na lool nag lool ndax ku ma xooloon danga naan kii du jug waaye sant nan bu baax sant waa Nasru 18 safar sant nan leen bu wér wér fu sant di yam rek sant nan leen ko bu baax a baax a baax a baax a baax a bi mu xam moom mu mujj ci màggal daaw bi maanaam dama gont fii di dem Touba ba mu duggee sare nag. dem ba commencé dem ba maanaam jëm ji côté di fay cher rek benn minicar moo ñu dab ba ñu dabe nag mu lonk sare bi nii da ko lonk rek di riwaale ko tuuti rek bi mu ko diree tuuti rek yàlla dogal sare bi lonkarti ko rek mu cëppeelu bi mu cëppeelu rek man ci laa jaare dal ci côté pegg tali bi nii waaw bi ma dalee nag la dama sukk nag ba ma sukkee nag rek sama tànk bi moo damb fii ci wéccu mooco bi moom moo damb de laa def soog ba samedi dimanche muy suuru màggal bu mag bi muy altine talaata alarba alxames ajjuma ñu ma ñu yóbbu ma rajo ñu yóbbu fi ñuy defee eh, kii kii ñu yóbbu fi ñuy fi ñuy opéré léegi jàll jàll daal di ma opéré ma opéré ni ñu wax dëgg yàlla sëñ bi daal moo joxe eh, ndimbal goo xam ne gii ci la bépp ku bu am ndog ci màggal bi rek daanaka ci ci lañ ci ci ci lañ faj moom sëñ bi moo la jàppale ñu faj la ci kattan suñu boroom ak seen barki wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant rek di leen gërëm mbàkke wax dëgg yàlla amoo benn jafe wax dëgg yàlla bépp boobu ba léegi alhamdulilah wax dëgg yàlla opéré nañ ma defaral ma tànk bu mu baax te wax dëgg yàlla gis yëgatu ba benn métit xanaa kay dox bu gaaw laa mënatul am nag wax dëgg yàlla amatul benn métit amoo benn métit. Euh, bi ñu duggee ci mbàkke Tuubaa bi ci jumaa ji muy daw xam naa xelim doon daw dafa bari lool bi ñu ñëwee ba nga xam ne mooy visite bu njëkk bi muy rond-point bi nga xam ne mooy gaz Dakar bu gaz Dakar bu njëkk bi foofu fi la oto bi daal di saaraan mbëkk li nga xam ne mooy poto lampe yooyu ñu def ci diggante ñaari tali ak trottoir boobu daal di daanu bi mu daanu itam dafa daanu euh, ba ba wëlbatikuwaat euh, ci la li nga xam ne mooy maanaam. Euh, faaru oto yi loolu moo daal sama tànk bi mu daal di pooj bi dem mu ma itam euh, boobu jamono yooyu man ak ay mbokk ay mbokki taalibe ñoo si nekk ñu bari waaye nag euh, sunu tànk bi nga xam ne moom moom moo moo demoon mooy li nga xam ne moom moo si gën a métti ci accident bi ndax des ay gaañu gaañu lañ amoon dañu ne yóbbu rek faj leen ñu demaat di di faju si ginnaaw bi ñu demee itam nag am nañ fa ñaari fan jafe-jafe yi metti lool. ci la li nga xamante ne bi mooy mbokki taalibe yi nga xam ne nag mooy di 18 safar boobu ci lañ dem si ñoom si njiital sañ Cheikh Abdou ak mbokk yi nga xam ne seex ne ko ñoom ak ñoom bañ jàpp ci paj mi ba nga xam ne jamonoy yi paj mi yemb na lool. ñëpp ci war a jàpp ku ci nekk def ci sa wàll ndax ndimbal la loo xam ne nii dimbali na hôpital bi dimbali na malade yi dimbali na sax kilifay dëkk bi ndax. ñoom bu ñu sañoon malade yi ñi nga xam dañoo ga dañoo màggal si bu ñu amee tolof tolof wax dëgg yàlla ñu toppatoo leen ñu mën a delluwaat seen bopp ci nu mu kon daal ñëpp la dimbali dimbali sax système de santé bu Sénégal kon ñëpp la dimbali di leen sant bu baax ci liggéey boobu taxawaay bi. di leen sant di leen gërëm waa Naslu 18 Safar euh, di ko jaarale si turu euh, seen président Cheikh Abdou Mbacké euh, mu sëñ Dame Atta di ko sant moom tam di ko gërëm di bi lu ren rek déwén mu gën ko mën a yokk pour que malade yooyu nekk si yoonu màggal bi bu si tolof tolof amee tamit euh, hôpitaux yi mën ko lijjanti mën ko toppatoo euh, ba ñoom ñu mën a ñibbi seen kër si jàmm ak salaam. woo mbooleem mbokki taalibe yi mbokki jullit ñëpp ci ñu ñu jàpp ci dix ci nasr 18 safar ngir ak nekkam am na am na njariñ te itam mbooleem koom yooyu nga xam ne dajale nañ ko jox ko jox ko di wala di ko jox ñi nga xam ne am nañu ak gàllankoor ak yoon jëleenu ko fenn fu dul ci taalibe yi kon ñu ngi ciy woo mboolem bokki taalibe yëpp ñu jokku ci ngir yàlla jëmmi sëñ Touba. ñoo ngi ñaan de ñaan rek yàlla yàggal seen taxawaay ndax wax dëgg yàlla li ngeen def de yàlla gis na ko yonent bi gis na ko alhamdulilah tabaarakallah ndax instant boobu moom bu ma naa doon a jënd kii li ma war a opérer rek du sotti. ah kon loolu moo ko du sotti. Nasru 18 safar euh, kuréel la goo xam ne ñu ngi ko sosoon ci jamonoy sëñ Sidi Mokhtar ñu sos ko ci ndigalam ak ci kilifteefu sëñ Basiru Mbàkke moom sëñ Abdul Xaadir ndax dañoo gisoon ne màggal gi réalité la ci euh, ay accident ndax niñ ko xamee yoon wi moog looloo ànd waaye rawatina jamono bi nga xam ne oto yi dañuy jógandoo. te ci pays sous-développé la ñu nekk ñi ëpp ci ñi lu mel noonu di gaar dañuy am jafe-jafe wu mën a taxawu seen bopp te ku màggal gi tax a jóg nga dem ba ci yoon wi am gàllankoor xëy na bi ngay jóg sax paasu aller rek nga am am problème mu retour nga ñëw ba ci yoon wi am problème tëdd ak saw mettit ñu yóbbu la hôpital say mbokk tuñ tuñi ngay xaar pour ñu mën laa dimbali faj la. nga mën faa tëdd benn fan ñaari fan ñetti fan ah, ba mujj sax nga taftafal sam paj rek dem ndax ñàkki moyen loolu war laa topp sa giirug dund loolu xaw a nekk jafe-jafe boo xam ne lu dooy waar la ah, bi ko sëriñ bi gisee nag sëriñ Bass mi nga xam ne moo yore màggal gi daan nañ ci jéem naka jekk bi comité bi sosoo ba léegi ndax daan nañ def bu màggal passé eh, commission bi nga xam ne moo yore wàllu social ànd ak commission santé ñu dem ci hôpital yi xool malade ya fa nekk moo xam accident ñam fa indi moo xam la fa ña fa neen indi ñu yëkkati ay ndimbal jox leen waaye lii nag dafa nekk lu sérieux loo xam ne bi ñu ko xoolee xam ne loolu doyu ci ñu nekkoon nañ ko jël beneen jëlin ci la ma sëñ bi joxe ndigal nag ma taxawal Nasru 18 safar moom sëñ Basum sëñ Abdou Khadir amoon initiative yi itam nag chaque màggal ñu assuré euh, diirub juróom-ñaari fan yi màggal gi muy ñetti fan yi jiitu ak bisu màggal gi ak ñetti fan après territoire Sénégal yëpp ba nga xam ne ku jógee fu mu mën a doon jëm si Touba wala nga jóge Touba di ñibbi euh, fu mën a doon ci réew mi Euh, boo ci accidenté euh, kuréel gi mën laa jël en charge assurance bi man laa taxaw faj la euh, du ci yem waaye bu la fajee ba pare mu bàyyee la ay laago ñu mën laa dimbali ci loo mën a jàpp du ci yem waaye ku ci yàlla dogal nga ñàkk sa bakkan sax ñu mën a taxawu sa njaboot loolu mooy initiative bi gën a wér teg ko nag ci solidarité nga xam ne prime bi dañ koy sot rek fay ko ku ne def ci la nga man ngir yàlla boo soxlaa pour yow jariñoo bu sa mbokk soxlaa jariñoo bu keneen soxlaa mën a jariñoo loolu mooy initiative u Nasru biñ ko mënagul itam euh, depuis biñ ko tàmbalee ba léegi euh, saa su ne euh, sëriñ bi ci boppam xili xilifa gi bi ko tàmbalee sëñ Sidi Maxtaar atam yu mujj da ci yëkkati alalam def ci daaw sëñ Muntaxa noonu la ko defee yëkkati alalam def ci sëñ Basirum sëñ Abdou Xaadir depuis biñ ko tàmbalee ba léegi moom itam da ciy contribuer ñooñu lañ amagoon ci bailleur yu yu ñu ci mën a jàpp bu baax yemuñu ci waaye lu mel ni commune bu Touba chaque année daf ci daf ciy jàpp euh, daaw mën nañu wax ne sëñ Muntaxa moo ci participé sëñ Basum sëñ Abdou xaadir sëñ Moussa naawel euh, commune bu Touba Mosquée ak ku ñuy wax Abdou Fatah ak ku ñuy wax sëñ Alpha Fall ak maître Madické Niang daaw ñoom ñoo ñu jàppale ci fonds yi nga xam ne moom lañ doon taxawoo malade yi euh, li ci nekk nag mooy mën na joxe statistique yoo xam danañu jox importance bi nga xam ne yëf fi am na ko daañu ci mën a amee idée parce que li ñuy wax mooy. en moyenne chaque année cent accident dana am ndax bu koy seet daaw cent quarante deux accident moo am daaw jéeg cent trente six victimes yi itam en moyenne cinq cent victimes dina am yoo xam ne xëy na du ñu yem nu ñu loro waaye mën nañoo am na ci yu yu doy waar am na ñoo xam ne ba léegi la leen daloon mi ngi leen topp bàyyiwu leen muy daaw jéeg ak daaw yëpp pour wax ne en moyenne kon mën nañ jàpp ne cinq cent victime mën naa am. Nasru nag bi mu tàmbalee ba léegi bi mu amagul euh, euh, euh, man-manu mën a attendre objectif am nga xam day assurer réew mi ku ne ñu jël en charge totale biñ ko mënagul itam ñi nga xam ne taxawoogun nañ leen ci fekk leen fañ nekk ci hôpital defal leen lañ mënta ñàkk lépp mu yi gën a cher comme implant orthopédie te buñ la fa fekkee itam lépp loo aajowoo luñ ci man lu ne dañ koy def mën na am sax mën nañ ne lépp la ñuy def ci jamono bañ la fa fekkee la nga soxla woo ba ci ordonnance yi ñu ngi jàpp ne environ ay soixante soixante dix personnes lañ ci dimbaleegoon commencé deux mille euh, deux mille seize deux mille dix sept deux mille dix huit kon foofu lañ ci tollagoon waaye suñu yéene mooy ku ci loru rek ñu jël la en charge totale lépp lu ci war ñu def ko te xam naa ne foofa lañ jëm ñu ngi ko def nag euh, teg ko ci ndigalu sëriñ bi di ci liggéeyal sëriñ Touba ci bisam bi teg ko ci itam loolu sëriñ boo xam ne wallaahu yansuru nii wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri za nafan bila darar ñuy wax ne itam. pour ñëpp la euh, képp ku bëgg lu baax képp kuy jullit képp ku ku koo xam ne mënoo seetaan ku loru euh, bunt la pour nga nga jàpp ci ndax mbir mu mu diis la waaye diisul ci kaw bu ci ñëpp jàppee euh, lu am solo la itam loo xam ne wax dëgg yàlla ndimbala ndax te fekk koo xam ne mu ngi ci diggante dund ak dee nga taxawu ko ci wàllu ay moyens financiers ba mu jóg nekk ci sagoom loolu moom dara mënu koo ëpp doole.